fekk na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jox ñaar ci burdu ni ma moom laa la féetaleel sama diggante ak yow waaw waaw ni ma même boo ko mënee wax waa daayira bi sax ñu di ko jàng nañ koy jàng waaw waaw waaw dama yaa akramal xalqi waaw maa lii man aluudu bihi siwaaka inda xuluuli alxaaditi alamimi boobu la ma joxoon teg ca ba ca des ma lay yadiqa rasulallahi jaahuka bi taxal la taxalla bismi mi mu ni ma ñaar yi dee ko jàng te wax waa daayira bi ñu di ko jàng waaw tax na nag ñu bàyyi xel loolu rek te xam ni tabaarakallaahu li ñu war yépp mag ñi moom lañ ñu ci yéene jox nañ ñu ko bu ko defee rek ñu bàyyi xel di ñaanalante nag di ñaanalante kenn ku ne ñaan giñ lay ñaanal li wér di neex neex neex li teraanga di neex neex neex neex li am alal di neex neex neex ñu ñaanalante kenn ku ne sa pas-pas bañ a rëcc boobu moo gën di farata yàlla xam na ko waaw kenn ku ne ñu ñaanal la yàlla sa pas-pas loolu moo gën a am solo lu tey topp soog caa topp kon nag ñun ñëpp yàlla nañu yàlla dimbale ba sunu pas-pas bañ a rëcc waaw kenn ku ne yàlla la yàlla dolli sutura ci yàlla defal la tawfiq te yàlla aar la te yàlla musal la te yàlla ubbi buntu mbaax ak buntu yiw zahiran wa batinan ci bàkk ke mag ñu baax ñi incha allahu moom la ca kanam rawali bët foog naa ko bi ci des itam am na loo xam ni kenn du ca nekk dara di la jaralati nga cay jël dis euh, benn distance bi wala na nga ca doon yëngoo nga ni dootoo ko yëngu jaru ko jaru ko ndax kenn ku ne ba ngay ñëw kenn woowu la yaay ñëwal sa bopp waaw kon nag da ngay am fayda gu day nii rek li la taxoon jóg bu la ci kenn dindi waaw